waaw jërëjëf maa ngi tudd Ibrahima Ba nekk président association ABS agir pour le bien-être et la sauvegarde de l'environnement euh, tey nag li ñu fi dajale dafa nekk loo xam ne nii lu lu lu am solo la te mu nekk loo xam ne lu ñëpp di wër tamit wér gu yaram euh, mu nekk aussi tamit euh, loo xam ne dafa jafe am ci sunu réew yi ñu xam ci lañ nekk am ay kuréel yu jóg yu mel ni Précieux Care di dox ci wàllu mel noonu di ko yombalal askan wi ngir ñu mën a gis seen bopp ci wàllu santé. Nous avons un objectif ni mooy doomu adama bu nekk rek am accès ci santé nu mu gën a yombee nu mu gën a gaawee ak euh, développement mënul dem sans pour autant que nit ñi am ay wér donc kon ñoom seen contribution fa am solo trop. ci aussi ñun ñi nga xamante ni dañoo nekk kuréel di bien-être askan wi. maanaam nekkinu askan bi nu mu gën a ñoŋee moo xam ci wàllu environnement la ak lu mu mën a doon dañ ciy jóg di ci yëngu saa su nekk ci loolu aussi la Assane Ba bi nga xam ne moo nekk président bi nga xam ne moo nekk leeral yeesal bi nga xam te ne moo nekk Mboro euh, waxoon ñu activité bi daf ñu ci bëgg a boole ngir ñu liggéeyandoo ko teeru gan ñi euh, dimbal leen ci wàllu organisation bi ak ci wàllu communication bi yàlla dogal nag loolu aussi biñ ñu ko waxee ñoo xam ne comme ñu ne ci bien la ñu nekk donte temps bi gàtt na parce que bi ñu koy wax ak léegi matul juróomi fan mais dañu gis ni que lu baax boo ko bu buñ la ko yàlla indilee même su doon teteete la danga ko war a jël parce que am na ñu ko yittewoo te demuñ si ñoom kon su yàlla dogalee mu ñëw Mboro dañ naan sens la bu rëy occasion la boo xam ne dañ ko war a saisir donc ci la ñu daal di boole li ñu am mag lu ñu amul yëpp jaayante ngir teeru gan yi ñu ñëw parce que nag quoi qu'on puisse seen programme la ñu yor programme bi ñu yor moo xam ñu liggéey ñoom ñu ñàkk léegi ñoom dinañ ko def kon ñun bu ñu yàlla boole ñu boole ñu si pour ñu liggéey ak ñoom kon dañuy def lu sant yàlla aussi population Mboro bénéficié woo ci d' abord parce que lu tax mooy kaay faju ñu faj la xool si wér géeram wax ne leen a dal te fayoo ci ñaar dërëm ñu ne déet na waaye encore ñu am ay garab yoo xam ne dañ ko fi am mën la ko yombalal baaxee la ko te du ci fay ñaar dërëm aussi loolu lu jafe la. waaw donc commencé woon nañ ci tey suba ci 9h euh, war a jeexal 14h ci bi li gën a am solo aussi mooy li muy li ñuy liggéey lépp dañ ne faj baax na waaye fagandiku moo ko gën té ñom ci loolu aussi jël na ci compte ba nga xamni bi faje biñu ñu faje ba mu yag dañoo taxaw wax ni nañu ñu faj baax na mais aussi naka ngeen di def ba mëna a bañ a faju moo gën ñoom aussi tay bax nañ ko askan wi ci walu diabète ak tamit ci li nga xamni mo nekk walu euh tension donc loolu aussi su sensibiliser nañ ci population bi yaakaar naa ne am nañ ci xam-xam bu rëy tey loo xam ne jàng nañ ko ci ci seen ci euh, seen ci seenu mbaax moo tax donc loolu aussi duñ def lu dul rek rafetlu ko di wax ni aussi tamit euh, ñëpp ñi nga xam ne waroon nañ ko yëg yàlla dogal na donte temps bi gàtt na informé nañu leen te aussi tamit wuy si nañu parce que gis nañu ne que wàllu santé nekk na loo xam ne ni ñoom ñëpp soxla la donc moo tax aussi tamit tey journée bi jàpp nañ ni ñun bu dee dañuy xool ndax réussir na wala réussir ñu dañ jàpp ne réussir nañ ko à 100 pour cent donc xanaa rek di ñaan ñu koy pérenniser mais aussi di ko gën a teel a préparer encore di gën a jël zone bi nga xam ne nii dañoo wër parce que ñun aussi li tax mu am solo ci ñun mooy ñun zone bi ñu nekk dafa nekk zone polluée te zone bi nek dañu nek dañu cohabiter ak ay industrie manam lu melni ay ICS lu melni ay GCO et tout te ku nek xamna ay ay tooke yu ñu def ci askan bi donte lii li ñum ñoko waroon sax gaddu di ko di woñi woo di ko def gratuitement mais ñoom buñu amé solos def ko duñ def rek lu dul ci mais aussi di di di woo les élus locaux di wo aussi les autorités étatiques yu mel nii ñu fexé di ci duggal seen loxo ba nga xamni da fay gën di yaatu du gëj ci gox bi sax gox bi sax gox bi nek dañu dañoo soxla lu mel nii kon donc ci loolu lay santé di gërëm précieux cœur di gërëm aussi Assane Ba bi ñu boole ci walu collaboration bi donc di remercier aussi population mbor ni ñu ci taxawee tey ni ñu ñëwee wuy si massivement euh, donc di wax ni rek yalla na ñaar sutura ba dewen ñu mëna am ay 72 heures yo xamni dañ koy def may lancer un appel vraiment ci euh, le coordonnateur du précieux cœur di ko wax ni ko lu melni ñamal ngeen ñuko mais ñun tàqamti ko guñu te liñ bëgg moy mu gëna a yaatu franchement parce que li nit ñi doyaluñu kon nak ñu leen di ñaan daal ngeen mën 72 heures inshallah ci seen programme bi di ñëw merci beaucoup euh, nous remercions aussi la présence de tous les acteurs qui sont là aujourd'hui. Moi, c'est Hassan Ba, je suis euh, le secrétaire général des réformateurs au niveau de la commune d'Amboro. Euh, comme vous l'avez tout à l'heure dit, nous sommes là aujourd'hui pour une activité en partenariat avec ABES, qui est là, Ibrahim Ba, <coughs> et aussi, pardon, en partenariat avec le Précieux qui est une association ou bien un organisme national qui euh, lutte contre des maladies ou bien qui est là pour mener des actions dans le cadre de la santé. Nous avons, en partenariat avec qui Care, organisé aujourd'hui une journée euh, de consultation gratuite et de dons de, euh, médicaments pour les populations de Mboro. donc, depuis 9 h nous sommes là pour essayer de participer au développement de notre localité par nos maigres moyens, par nos actions et aussi en collaboration avec ceux qui sont là comme vous l'avez tout à l'heure dit, et Ibrahim l'a répété, nous sommes des jeunes, nous sommes des citoyens, donc euh, nous avons quelque chose à faire et nous essayons de participer d'un peu que bien de mal, essayer de, participer au, bien-être de notre population. Bon, la consultation, c'est gratuite, la consultation est aussi générale. Nous n'avons pas de cible, nous n'avons que la cible, les populations d'Omboro. Quel que soit votre âge, quel que soit votre sexe, vous êtes ciblé de venir aussi euh, se consulter gratuitement par rapport à nos 30 médecins qui se sont déplacés de Dakar à Mboro pour pouvoir nous offrir cette occasion-là. Et nous remercions aussi euh, le clinique Rassoul vraiment de nous avoir accueillis et de nous avoir permis aussi de mener cette activité-là qui, va droit dans le sens euh, de, de participer et dans le sens des actions citoyennes que nous menons à notre niveau. Nous avisons à l'avenir de faire 48 heures de consultation gratuite si possible 72 heures. C'est pourquoi nous lançons cet appel-là euh, au coordonnateur de Précieux Care de nous donner cette occasion-là de, pouvoir impacter le plus large possible les populations d'Omboro. Parce que comme vous le savez, nous sommes dans une zone industrielle et nous sommes pollués du jour au lendemain. Donc si nous avons cette occasion-là, on va le saisir et on va le pérenniser et on lance un appel à tous les élus locaux, à tous les partenaires qui sont au niveau d'Omboro de nous, de nous venir en aide, de nous, de nous accompagner et de nous, de, nous aider à mener, ces, de pérenniser cette, action-là. Nous, nous remercions euh, Ibrahim Oba, Abez, vraiment, euh, qui depuis euh, ce matin n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cette journée-là. Vraiment, il s'est décarcassé depuis, et, les membres de l'association d'Abez, vraiment, ils se sont décarcassés depuis hier même jusqu'à aujourd'hui pour, pour, que, que ça soit une réussite cette action-là. Nous remercions aussi euh, euh, le précieux vraiment, de nous avoir donné cette occasion-là. Parce que nous ne pouvons pas réussir cela ou bien nous ne pouvons pas faire une action dans le cadre de la santé sans pour autant d'être accompagnés par le précieux Et vraiment, ils l'ont fait de manière gratuite et ils nous ont accompagnés jusqu'à nous donner des, médicaments gratuitement aux populations. Vraiment, nous ne pouvons pas euh, s'en passer et nous ne pouvons pas euh, donc remercier sans pour autant les, nommer. Nous remercions encore une fois le clinique, le docteur Alpha Khan, vraiment de nous avoir aidés, de nous avoir accompagnés, aussi d'être là, présent avec nous durant toute la journée pour pouvoir permettre à la réussite de cette journée-là. Vraiment, je vous remercie, vous aussi. Donc, je remercie aussi la Croix-Rouge, vraiment. Ils nous ont accompagnés, vraiment. Euh, ils n'ont ménagé aucun effort pour permettre à la réussite de cette, de cette journée-là. Vraiment, on vous remercie et on remercie la population de Mboro. D'accord, asalaamaaleykum man Ndière laa tudd donc maa ngi wax ci cadeau Précieux que di association socio-sanitaire et pédagogique donc bañ fi ñëwee tay ci suba ba ñu ngi remercier vraiment association ADEJ ak ñepp ñi ci fekk wa Croix-Rouge et aussi population Mboro parce que ñun suñu liggéey rek lañu am pour man ci jaamu Yalla muy euh, médecine bi ñuy def wala tamit ñi nga xamante ne ay étudiants lañ nekkaguñ ay médecins te depuis bu ñu ñëwee ba tey waa population Mboro ñëw nañ consulter wu am na ñu ci jox ay garab am na ñoo xamante ne bindal nañ leen aussi ay euh, bulletin yoo xamante ne dinañ ko mën a yóbbu hôpital pour suivi wala dara donc euh, vraiment depuis ba ñu ñëwee 9h ba tey consultation bi mu ngi mu ngi mu ngi jaar yoon. donc euh, bañ ñu ñëwee ba tey <coughs> comme niñ ko waxee Mboro zone industrielle la en plus poussière bi bëri na fi trop donc patients yi nga xamante ne jot nañ leen fi gis. Eh, lim bi takku trop waye ñi fi jotta gis ñu ci ëpp li leen doon sonal moy socc wala yenn bakkan yi di fat wala yenn yoy te jot nañ leen jox aussi ay garab yo xamantene dina leen jappalé loolu si si si sen seen si sen jangoro. donc euh, environnement mboro bi mën nañ wax kané mu ngi impacté bu baax ci santé population bi donc autorité yi nga xamantene ñu fi nekk bu mëne farlu tamit si loolu ñu def ko parce que santé mom moy lepp te ku amul wergu yaram tamit mëno def lenn Euh, d' accord donc conseil bi nga xamante ne maa ngi koy jox population bi vu que poussière bi moom mu ngi fépp kenn mënu ko téye jotoon nañ fi gis que ni période Covid bi nit yi ñu ngi doon takk ay masque donc bu fekkee masque yooyu mun nañ ko continuer comme ça poussière bi du dem directement si seen bakkan yi ba mën leen a indil ay loraange si seen euh, poumon yi wala yeleen donc nañ continuer masque yooyu en plus di sàmmante bu baax ak seen hygiène bu ñu aussi si consultation bi jëm nañ si dugal benn temps boo xamante ne sensibilisation la tok waxtaan ak population parce que jox leen ay garab amna solo mais tamit ñu fagaru mo ëpp solo mm-hmm. donc tok nañ waxtaan ak ñoom si ñaari feebar yi nga xamantene amna doole trop si si si zone bi manam hypertension artérielle feebaru tension bu yéeg ak tamit feebaru sucre donc ñu ngi leen di ñaan aussi ñu sàmmante bu baax ak euh, tektal yi nga xamantene jox nañ leen ko fii nii